asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Sidina Ousmane Dramé pour réveiller des consciences comme ni ñu koy defee rek man ak oreille du monde on le ak oreille du monde bokk boole kattan yi euh, ànd gëstu te lépp loolu lu ñuy wax ñu teg ko ci xam-xam di ci invité tous les sénégalais ndax ubbi xel. taxan la rek taxan kenn ku ci nek man nga taxani indi tek ci lobb bi lobb bi bu rek bu soba yalla kenn ku ne da nga tali te da nga togg euh, kon ñu bëggoon a déglu nag euh, Ababacar Mboup Ababacar Mboup di sama xarit doon ku baax ko xam ne xam-xam ko ci yëngatu euh, mbiri diine ko xamet xam ko ci liggéey bo xamni ko def au niveau du Sénégal manam pour bëgg réew mi rek mom bopam moy xalé bo ne dañ ko bokku ñaan lu ñepp Euh, mu ne bokk déglu ko nag buñ ko dégloo ba pare euh, wax ju ne dafa am ay argument la euh, nit ñu indi ci suñu xalaat kon bismillah ñu déglu Ababacar Euh, protéger les LGBT, la communauté LGBT, il faut que les États les protègent. Deuxième obligation, prévenir la violence homophobe et transphobe. Troisième, dépénaliser l'homosexualité quatrième bi mooy c'est euh, euh, euh, en fait enlever la discrimination fexe ba discrimination dootul amati à leur égard. Mm-hmm. bu ñu leen kiiwee parce que mën nañ ko dépénaliser mu donne lu légal terewul nit ñi bañ a jëflante ak ñoom donc ñu la discrimination nañ ko dañuy utile. la cinquième nag mooy ñu autoriser leen à ce que ñu bañ di wut ay prête-noms déposer une association au nom du sida au nom de d'autres choses mais déclarer carrément que ce sont des euh, associations gays lesbiennes ou bien euh, homosexuelles ou bien etc etc donc ce sont ces cinq obligations là les Nations Unies guinée à travers ce document là né libre et égaux alors l'une des faits maintenant créer en fait des instruments des mécanismes il xam évaluer en fait ces états là les états membres de euh, des Nations Unies Nous avons l'EPU, c'est l'examen périodique universel Sénégal demande 2008 dem na 2013 Sénégal dem na 2018 alors à l'EPU 2013 Sénégal a 188 recommandations Il y constitution loi Sénégal 188 recommandations Sénégal accepté 174 14 yi la réserve 14 yi mi ngi mais il s'est trouvé que ni le 11 décembre 2013 ci EPU la pression est tombée l'état du Sénégal D'ailleurs, ce qui explique la venue de Obama en 2014 au Sénégal alors alors dépression pression yi il s'est trouvé que ni Sénégal depuis 2016 commencé à dérouler accepter en fait fléchir pour doxal en fait cet agenda là. ci naka exactement. Euh, ci laay ñëw nii dama bëggone expliquer même pour ñu xamni en fait c'est un agenda international c'est-à-dire on n'incrime pas. waaw ginnaaw ban ki déglu Babacar Mboup mu wax ci les Nations Unies wax ci les organisations yi nga ci au niveau international li nga ne wax nañ ko jëme ci mbirum goor jigen, ci les droits des humains. lam ca teg nag ak yàkkamte la ak nee na jéem naa seet président de la république mënu koo gis bëgg naa rencontre premier ministre mënu koo gis parce que affaire LGBT la ko bëgg a wax ma xam ko kon le Sénégal dañoo nekk ci une refondation nationale dañuy door a commencé di gas fondation bu nu waxee waxi góor jigéen waxi góor jigéen ay parenthèse la àgg gun ca bun ci àggee des na ko wax góor jigéen kenn bëggu ko ci réew mi Sonko bëggu ko bëggu ko bëggoo ko te amul kenn ku ko bëgg waaw taalib yi sax war ngeen leen a jàppale waaw ñu leen di sàkku bu méttee méttee metti waaw sëriñ daara yi imaam yi ak sëriñ si nañ ci tàmbalee xutba dama ne imaam yi nañ ci tàmbalee xutba ubbiwaat ci bopp nit ñi en attendant suñ fondation taxaw ba ban tegale muur yu jëkk yi ba ba ne ak ca waxtaan ci ak ñoom assemblée nationale bi ñoo xotti woon këyit bi duñ ca dellu duñ ca dellu fa dugal du ko fa dugalaat ñii fi nekkoon ñoo xotti woon këyit bi

4 ça va faire bientôt 3 mois. Hmm. peut-être dama yaakaar tey je sais que jot na ci sama courrier. Hmm. peut-être dafa bëggul toog ak man. Hmm. donc moo après 3 mois. ma ne léegi nag danaa ci tàmbali wax. te it danaa ci def conférence de presse te it danaa ci def une tournée nationale aussi wax ak askan wi. le premier ministre aussi je l'ai saisi à cette même date le 12. Euh, avril 2000 2024. saisir naa

Euh, ñëpp war nañoo xam ne yoon wi nga xam ne fi la adduna bi jaar ba toog di ko waxtaanee ak di ko def benn africain fekkewu ko tubaab ñoo toog sukkandiku ci seen i téere sukkandiku seen seeni xalaat sukkandiku seen i bëgg-bëgg ak seen civilisation seen intérêt créer ay yoon yoo xam ne ca la aw ñun bu fekkente ne yoon woowu tubaab yi tëral ñu te ban koy samp fekkewuñ ko bokk ci ak ñàkk fulla la bokk ci ak ñàkk fayda la yëpp war nañ cee mën a génn te jóg xam ne ay doome adama lañ yu war a ay doomu aadama lañ yu am xel ay doomu aadama lañ yu am yi bëgg-bëgg ay doomi aadama yu am civilisation kon bismillah ñu door waxtaan bi waaye yii Nations Unies wax daanaka amul lu njëriñ muy waxtaan wu am solo waxtaan woo xam ne euh, bu ñuy xool ak fàttali moom lay indi maanaam euh, luñ décidé woon dugaloon ko assemblée nationale assemblée nationale teguñu ko ci woon maanaam la leen neex nu def ko jël këydo sans respect sans respect xotti ko sànni ñu proposition de loi boo xam ne euh, bu populaire la woon Sénégal gépp ci àndoon Sénégal gépp ci jógoon loolu moom euh, mbiri góor jigéen moom du yàgg mukk ba Sénégal nangu ndax bu ñuy xool réew moom amul kenn koo xam ne da jur doom ab góor jigéen di la ko tuddal amul kenn koo xam jur doom ne ñaanal leen ko bu màggee doom góor jigéen bu mag amul kenn kuy jur doom kuy jur doom ah di jël sa doom di ko yóbbu ci daara boo xam ne day sàkkuy gone nga xam ko tay ko amul kenn koo xam ne da nga jur doom nga bàyyi ko muy ànd ki góor jigéen kon góor jigéen dafa nekk loo xam ne ah, naturellement naturellement la civilisation du Sénégal

ci loolu lañ nekk moo tax nous avons rien compris góor jigéen li nga xam ne moo koy defar Sénégal indi ko fa nga xam ne moo koy protéger aar ko mooy loolu gi lay la lay laïcité boobu moo fi indi góor jigéen bu fekkee ne da ngeen a am fit te ngeen ne seen sëriñ si am nañ kàttan wala ñeme nañ tubaab nan wax jëmee ko ci laïcité bi bu laïcité bi taxawee rek am naa yaakaar ne robinet bi dootul xel li daa mel ne rek Euh, nga bi ko ndox euh, euh, le président Ousmane Sonko actuellement dafa tal leneen tal leneen du la recevoir ngay waxi góor jigéen déedéet góor jigéen bi assemblée nationale buñ ko parce que ñii fi nekkoon ñii fi les mêmes têtes ñoo nekkat ci nationale pourquoi ngay dem ci Ousmane Sonko ah di promettre wax ci demé li bëgg li te bëgg ko moy nous allons reconstruire notre état nous allons faire une refondation nationale à part de cette refondation nationale ci ñu faté fàtte bunt yu bare bare bare bare bare mais pour mbiri góor jigen mbiri góor jigen heure yi mané kan set jappi Macky Sall sax jublu ci Macky Sall denc ko moom gënu gën ci mbir la moo xam ne wax naa la ko amul ko bëgg kenn bëgg ko mais dafa am toujours loo xam ne moo jiitu toujours day am lu ca kanam dara topp ca topp ca dara topp ca ak ca leneen mbiri góor jigéen dina nga am ak naa féq ngi ci ah ñooñu nga xam ne ñoo fi nekkoon assemblée nationale xotti kayit yi contre mbiri góor jigéen tey ñooñu bëgg dëggal mbiri góor jigéen ñooñu tey ñoo taxaw naa dañuy dugal benn bill à l' assemblée nationale pour ñu wax ci mbiri góor jigéen am réew ak naafeq yoru ko am réew ak naafeq yoru il faut ñu onet il faut ñu honnête li fi dugal góor jigéen yi xam ngeen ko góor jigéen yi ak laïcité bi ñoo ànd wax naa leen bu yàgg ne ca njëndum njàmm ba fii ci Amérique da gis koo xam ne dañu ci jaam yi tànn ci ñaari ponkal doyuñ ko dara lu dul ponkal di ko sëy wala mu di leen sëy kon mbir góor jigéen dafa doon man dafa doon racine boo xam ne bu artificiel yàlla na ci yàlla musal na ci yàlla musal le président de la république euh, dafa lu ñu lay rek kan boo ko waxante dëgg même le gouvernement waaw dama ne kan boo ko waxante dëgg ab taalibe warta mën a réew taalibi taalibi di yorum réew jaam yi jaam jaam it di yorum réew wax naa leen ko keroog ne ki nga xam ne danga nga mooy sa yàlla nga tiim koy raam di jooy mu di leen tifli bu askan wi yaakaaree rek askan woo torox nañ ndax askan wi ñoo war a toog décider waxtaan seet lu leen doy ak kileen leen doy ñu jiital ko kooku ñu jiital mu doy nu boo demee feneen di raam ak ak ak a tàllal loxo yi sàkku yi ñaanal lu kenn xamut kooku du moo mën a yorum réew am réew projet moo ko yor projet ay tiflit mënta defarum réew boo dee man fal la yow yaakaarul ay tiflit ay tiflit dama ne booy nga delloo réew mi dafi leneen tant que nag Sénégal li fi nekk nangu leen koo wax du y a solution même examen examen les épreuves de dik nga gëstu ci biir indi say argument ah joxe sa texte réussir en passant par la science non la ñuy defee lépp waaye ay tiflit yii ñu yaakaar du moo fi ay góor jigéen te yii ñuy tey ñuy bi garab gu ñu naan garab laïcité nga xam lu bon lu ci kilifay diine yépp ci d'accord la laïcité li tax ñu d'accord ci mooy xool li ma leen wax depuis 1896 ba heure bi heure bi wax yéen mu leen fi jëlee laïcité bi moo dañ gis lu ne la dégra la dégradation du peuple sénégal la dégradation des mœurs la dégradation des valeurs lii nu jàpp lii nu jàpp fi mu nu jëmee bu nax suñ bopp sawara képp lañ jëmee alxuraan du fi nekk ngeen ay jullit ngeen tubaab bi ne la majorité fait la différence une majorité nga xam ne kooku fu mu am ñooña ñoo war a indi seeni xalaat ñoo war a jiite ñuy quatre pour des musulmans jusqu'à présent nous n'avons pas compris le Coran ni Bible bi sax comprendre ko te le Sénégal est un état réew moo xam ne ngeen baal ma réew moo xam ay croyant rek fi dëkk Sénégalais boo seen dafa gëm te loolu mu gëm lu dëggu ci moom la kon bu alxuraan dikkee ñuy quatre-vingt-quinze pour cent de musulman war na loo mën a sukkandiku ci alxuraan di lijjanti lu bari waaw war na ma sukkandiku alxuraan di lijjanti lu bari yow Babacar Mboup Babacar Mboup xalaat lii moo la wax kilifa diine gu fi am problème ak sa jabar bu ngeen demee tribunal ab chrétien sax mën na laa atte wala ku dul jullit dama ne sëriñ bi fi am problème ba dem tribunal ki lay mooy ka yor sa dossier ki yor dossier bi nag du ne chrétien la wala jullit la wala dara dañu woo rek jox koy document ne ko sëñ bi ak soxna am sii dama li ñu war a tabax ci réew mi bari ndaam lu jiitu góor jigéen góor jigéen bàkkaar bu bon la bàkkaar boo xam ne yal ci yàlla musal ku ku ku lu doomu aadama lu saltee ngi noonu loo xam ne dama ne amul kenn ku ko bëgg muy ñàkk teggin goo xam ne sa corps humain moom nga toroxal sa moromum góor ngeen tëdd loolu sa morom jigéen ngeen tëdd loolu dama ne képp koo xam ne si xalaat nga ko xalaat nga ko dan laa war a fay moo tax ñu relier woon ko ci jàngoro la jàngoro feebar dof ay dof lañ ginnaaw bi rek la ko les droits humains génne ñu ne ay nit lañ c'est le goût c'est le plaisir c'est le goût c'est le nag loolu noonu waa Sénégal duñ ko accepté te duñ ko mas a nangu duñ ko mas a nangu Ababacar Mbuub Ababacar Mbuub dama ne mbiri góor jigéen yi taaka taaka yéen ngi accepté di raamal sëriñ si mun leen ko fee jëlee dama ne taaka yéen ngi défendre sëriñ si buñ leen tuddee ngeen ne fër mel nay dem du yéen a fii jëlee lii bàkkaar dafa bari te foofu la bàkkaar bi commencé ca kaw riba ji nga xam ne moom la ñuy lekk alal réew mi ñuy saax-saaxee politiciens yu àndal suufi réew mi ñuy jël fen yi ak tappale yi ak càcc gi ak njaalo gi dama ne mënoo soqi koo ci loolu mënoo dëkk ci loolu woñu ko daal da nga fi jëlee loo xam ne xel xel ci robinet dama ne ak ngóor jigéen pour ñu fatt ko fatt bën bën bi il faut kilifa yi ngeen doy ay kilifa yi diine ñemee wax ci lay laïcité bi laïcité bi nag ñoo ci d'accord seeni maam a ci d'accord li tax ñu d'accord seeni maam d'accord ci ban koy sas seeni maam a fi nekkoon ba tey heure bi laïcité baa ngi dox te ñoom ñoo fi nekk te ñu ngi tedd ci li ñu tedd mooy liñ li nga xam ne moom la franc-maçon yi jël ci nun képp ci dañuy dund kon kan boo ko wante dëgg te jéem a jublu ci réew mi bëgg nañoo liggéey problème bi réew mi am léegi d'abord moy dund bi problème bi mi am léegi moy jéem a développer éducation bi problème bi réew mi am moy suñu finance ñu redresser ko problème bi réew mi am moy ñu fexé am suñu xaalisu bopp am suñu banque centrale dakh tubaab bi ñuy dem problème bi réew mi am moy notre souveraineté nationale à partir de cette souveraineté nationale nga xamné nous allons baser à partir de cette majorité pour cette lu ñuy def la majorité fait la différence te yalla dogal na nous sommes tous des parents ay mbokk lañ loolu déjà rek avantage la ñu ne chrétien amuñu benn réeroo amuñu benn problème waaw mii ni ñu tubaab bi indi teg ko suñ kanam suñ maam yi nangu ko boobu nag bu nu ñu ko fee jëlee moo fi indi góor jigéen gi ñoom ñu ko seeni maam nangu woon nag bu nu amut fulla amuñu fayda mënuñoo taxaw xamal ne réew mi quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans fi nekk réew mi fi nekk dañoo gëm diine tant que ñoo amuñ fit woowu temps wu xeexu ñu tàllal seen loxo ñu sàcc àll réew mi di leen ko jox ak dagg suuf réew mi di leen ko jox Babacar Mboup li nga bëgg di sotti li nga bëgg di sotti ma di ko répété damane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax dañ daan waxtaanee soxna Xadija di ci waxtaan mu wax yu rafet nit ñi di ci déglu di ci roy waaw te tey fii sëriñ boo fi tuddee jabaram jabar ji képp boo ko tuddee taalib yi di la wër bëgg laa rey dama ne kan boo ko wante dëgg waaw tant que l'islam yii ñu ngi koy tourner en rond du yàgg mukk ba li ngeen bëgg jóge fi te li leen maanaam mbir da ngay xam di ko téye li ko saañ da nga koy xam saañ baa nga ne dama saañi ko saañ bi du leen du dul cette laïcité qui est la locomotive de Satan la locomotive de Satan bii di laïcité bi mooy li nga xam ne moo fi tënk lii te duñ dem ba ci daara yi kenn waxante dëgg waaye kenn waxante dëgg ay bokki neen nañ ca wolof laay wax dem leen ci daara yi koo gis moom mokkale alxuraan ci daara moom ci daara mas naa dégg ñu ne sëñ bee de ma ngay ma ngay sëy taalibe ba wala taalibe yaa ci seen biir loolu moom ku mokkal ci daara wala nga aw ci daara mas nga koo dégg te day am ndegam ca daara fa la ñuy formé fa la lay cité ba dugg ba suñuy doom ñu war leen di jàngal alxuraan sëriñ bi di leen sëy wala ñu sëyanti ci seen biir dama ne kat lijjanti mbir yooyu ba noppi door a jublu au niveau national dama ne ak ngóor jigéen yàlla na ci yàlla musal ngóor jigéen ak franc-maçonnerie ñoo ànd la république ngeen nangu te xamul république moo samp ngóor jigéen gi waaw gis nga ndar ndar bu jëkk tubaab bi ma gaalu tubaab bi bu ma saan dikk ba gaare góor jigéen ñi dañuy tas ci dëkk bi dem ci tefes di jàpp xale doomi ndar yi di leen sëy wala xale di leen sëy góor jigéen am na ndar lu yàgg dégg ñu naan góorug ndar lu ko indi woon lu indi woon góorug ndar booba ak léegi ñaata at la ah li ko fi indi kan la tubaab bi ko fi indi mais nañ dàq tubaab bi mu dem nañ dàq tubaab bi mu dem comme loolu président Ousmane Sonko wax ñu dégager tubaab bi Guy Marius Sagna wax ko ma di ko wax ñépp di ko wax il faut dégager le blanc tubaab bi ko fi indi le luxe le matériel l'argent ah satan ah dama ne bu nax suñu bopp waa assemblée nationale bii nag buñ ko tasee ba noppi ñii fi nekkoon wax naa la ko ñoo wote woon ñoo xotti woon proposition de loi ba Ousmane Sonko day door a toog te réew mi dañ ci ay problème yoo xam ne yu garaaw a garaaw la waaw tol yoyu su sëriñ ci sëriñ ci yor tol yoyu jogal wax ci ñu delo ko etabé ko mom suuf yoyu ñu jël nañ ko delo babakar mbub fanatisme baaxut ab julit du fanatique té dëgg bu jotee dang koy wax mais doo du wet gi la neex ci dëgg ga diko ko wax c'est pas normal jogal nga wax mak jogal nga wax Ousmane Sonko ni ko wëri mak Sall japp ko ñi sàcc al rew mi leen wëri japp leen waaw tubaab yi dañ leen fexe génne ndax góor jigéen gi ngay wax ñoo ko fi indi waaw kilifay diine yii ñu topp ah te boobu ba léegi amuñu lu ñu jëriñ ndax réew maa ngi torox réew maa ngi torox mel dut sa baaram ci lii lañ fi def ah dañuy bañ a wax rek ngir joxe cër waaye liñ xam bari na lenn lu leen taxaw la ko xam nañ nu mu taxawee bu cay bor nekkee xam nañ ko bu ci lu nekkee xam nañ ko kon boo ko waxante dëgg te jublu ci réew mi parce que jot na tant que génnewu leen tubaab yi jëlu seen responsabilité après la souveraineté jéem a taal lox seen bokki africain yi dama ne torox ngeen mbubb boo koy ñëw daa am fooy tàmbalee ba ba koy sol boo toggit daa am nooy nooy duggee nooy taale nooy ñulugee nooy xorome nooy tëmbalee par benn benn benn ba ba nga yekk waaw mënoo bëri dana yàkkal déedéet am na leneen lu gën di farata xam nga ko kilifa yi diine yii jaxasoo ak politique bi alal ji nga xam ne jël nañ ko bu fanatique wax leen ñu delloo ko moomu ñu ko te lewut nit ñi dofuñu li fi nekk lépp xam nañ ko boo nee sëriñ nag ngeen mel lay dëmm te boo nee yàlla du du ngeen ma déglu kan te xoola bu leen du fontoo alxuraan du fi nekk ngeen xam ko bu leen tay taylu alquran du fi nek am lu ñu digël ngeen xam ko don 95% vingt de musulmans dem assemblée nationale di fa indi yenen loi yo xam de dëppoo ak alquran motax may soñu le président de la république di soñu le peuple sénégalais il nous faudrait il nous faudrait lu gatt gatt 15% d'imam dans l'assemblée nationale parce que li lek lekk ñoom war nañ ko xam dama li ñuy naan ñom war nañ ko xam projet de loi yi duggal ci ay sey war nañ ko xam

bàkkaar bi nekk moom euh, yàlla du leen ko jéggal ak bokkaale ak bokkaale sax gën a bon ak ngóor jigéen te ci bokkaale lañ dëkk waaw kan jublu ci réew mi defar ko dàq tubaab bi ñuy dem mu xam ne ay jullit lañ xam ne itam ñii ñu ci nekk doon ay chrétien ñoo bokk lépp loolu il faut ñu reconnaître ko waaw wéeklu nag ci lekkum diine ko wala diin sukkandiku ci loolu ànd ak suñu mbokki chrétiens yi defar tabax réew mi te ak ngóor jigéen alxuraan bëggu ko ak ngóor jigéen bible bi bëggu ko waaw góor jigéen dafa nekk loo xam ne nit ku civilisé sax te amul diine bëggu ko loolu ñépp xam nañ ko Macky Sall la ko gën a xam Ousmane Sonko la gën a xam kilifa yi diine yi la gën a xam yaanu ko gën a xam assemblée nationale xam na ko waaye alxuraan jigéen jël sànni ko ci mbalit mi toog di créer seeni loi Moustapha Niass naan baax nag ak baaxut mais mooy seen yàlla te ngeen teg fële alxuraan loolu moo toroxal réew mi te du ngeen ci génne noonu waa LGBT du ngeen ci génne noonu tant que tant que robinet bu koy ubbi ah mooy lay laïcité jëlewu leen ko fi la république jëlewu leen ko fi waxuma la góor jigéen waaye da ngeen gis nguun yi ngaana da ngeen ko teg da ngeen ci teg seen bët waaw noo ngi jéggalu bu baax a baax nag wax ji du mën a neex ndax dëgg moom ni mu demee rek lañ koy waxee waaye tant que euh, amuñu président yoo xam ne góor yu dëgër lañ ñemee jàkkarlook kilifa yi di wax leen li am ñemee jàkkaarlu armée française wax leen li am ñemee jàkkaarlu français wax leen li am am fulla ak fayda li ñu am ci ay ressources naturelles ñu nangu ko téye ko gëstu ci suñu bopp gëstu suñu civilisation li suñuy gëm-gëm tabax réew mi buñ ko deful ci torox leen jëm te kenn mënuñoo torox waaw lii nag maa leen ko wax ma ngi jéggul do ñak nak ñum xari waye day li ma wax mom ku ci tëdd sa lal xalaat ko da nga ni ki alquran la fi tari may ziaré ñëpp di ñaanal ñëpp jam te al ji ngeen sacc dem leen ngeen délo ko sacc daganul sacc daganul li ngeen jël muy ay suuf ak lu mëna doon délo leen ko sacc daganul ak dem sawra képp la lay jëmé may ziaré ñëpp man da sayidina Ousmane Dramé bu la révéler conscience yalla nañ buur sutural yàlla mbuur yàlla suturaal teg ñu ci yoonu jàmm aaral nu boppam ban mën a bokk tabax sunum réew jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf